فقام فقام بطا منهم فقام منهم بطا قام إليه على كونه مختدما boo toogee olof da nga koy wax uuf soo taxawee yor ko di dama moom leewu lañ koy wax waxaana waxaana minhum minhum bi nafsihim saxsan fatta xaama ilayhi xaama ala kawnihi muqtadina mu ngi dëkk tëg nabi naka la ko ne cas la bi bi seen miir la mel ne avion bu décollé topp te yaa ngi am benn question bu ñu posé foofu rasulullahi ci nguneem garab googu sa romb nga nga nuyu ko salaamu aleyk yaa rasulallahi daan na wax bi ma màggee ak neexoon ma xam ne doj bi ma daan nuyu fii di ma dee gune buy dem nii topp ko bu demee garab toog garab ga ANCAR ga fekk si ko def na ko ci waaye sa ngir ñu jëm ci ama xam si lay siroon téere yi di laaj nag ñu lu tax ñu bind ne kere bu nabi ànd ak Ababacar gàddaay ba dem Madinatul Munawwara ñu tabalaa leen feccal leen ba réception bi àgg ci dal ñu seet sa ndënd yi toog di waxtaan ñu fi ñoo gis nabi ñu dend ak Ababacar ñu di di laaj ku ciy nabi loolee kenn yokkunteeg na ayyuhumul mabruus ku ciy rasool ndax ñu toll woon i at ñaari at la ko mage ñaari weer te na Omar la nabi mage lu baree baree baree baree bare wayaasam bii ak mii baay bi dee maam bi ci la Omar juddu ñu ne lu tax ñuy laaj ku ci nabi da jant bi tiim leen ñoom ñaar Ababacar jóg fab kaalag boppam samp xeejam di ci mbaaral nabi téere yi ne booba ana niir bi ko daan topp booba ana niir yi yéen ñoon ne fii mu si jëm niir topp ko amee saara saayira saqi harra mu tiisee am na benn niir wuñu ko délégué bu ko topp da ko fegul niir bu nabi doxee mu dox bu toogee mu toog bu dawee mu daw bu daagoo mu daagu loolu wér ba léegi ba léegi alaaji Malick a ngi di wax ak labbe bi labbe baa ngi nii révisé ñëwu gaa yi ngir niir wu mu séenoon te ñu ñëw topp ci kenn ñu indi ko niir bi ñëw ñu ne waaw niir woowu fu ñu nekkoon keroog ba ñuy mbaaral nabi ngir naaj bu tàng bi ana niir wa niir wa du woon mujjisa bu doon mujjisatu ba tey mu topp ak moom irxaas la woon irxaas mooy fuuy fuuy bi ñuy gas lampali ko ba mu jóg ñu teg ci fondement fondement tàkk tegu ci taax nag bu paree ba ñu balancé ko poche ak bunte yi dootoo gis fuuy fuuy ba day riir loolu fuuy lu duwa gi la woon du woon mox ji saatu alaaji Malik ne na ci nuuriye bi fa irxas dégg nga Seydi Aj Malik bu mën a yoote mi ne na wa islaalun keral gañ doon keral gañ daan keral nabi bi aynin ci niir dil ajiri ci njolloor loolu fa irxaasul fuuy la woon buy feeñal ne dina dooni yonent fuuy bi fees na fondation bi tegu na tax ni pare na bi quarante bi ñëwee nag quarante ans yi ñëwee ñu takkal ko garab bi ci la ñu yóbbu li doon signalé yëpp na dina doon yonant parce que dañ doon signalé ne dina doon yonant doon na ko ne da ngay ñëw waasaltu quraytaasa siise waasaytu ruqaata almaktubata minka ilayna wa nabtaqi minka an tantadir suwayatan qubayla irtixaali ci sa jingi almuqari quran jazaahullahu xayran واصلت الوقعة المرقومة ونبتقي منك أن تندبر سويئتك قبيل ارتحالي ما دلي مسلمان ngay ñëw ñu lan ko suivre lab ban ko xool ba mos waa jàng naan inna saa wala lab ban naan inna saa la umu ma alxolami bàyyi gi ngeen bàyyi gune bu day nii ci bagage bu day nii di fekk si teranga ji toll nii soxor mënu koo passé koo xol yéena bon te bu ñu woon a moom dara du am na bina yoxoos niir woon a yoxoos alaaji malik ne lama raahum la waxoon léegi dana lama raahu kon damiri mun fa mufrad la kala damiri jam la woon lépp am na léegi alaaji malik du mooyu na gan ñëpp la wax la bi baa ngi ne jàkk Moustapha commencé nag génne benn dossier di xool noppi na bi di xool dossier bi di xool bët yi di xool dossier bi fàggan ñam bi di dalal bëtam ni muy lekk bi mu jigéen muy xool ni muy doxe lama raahu xaadaran bahira ba mu asee ba mu dëj ko xool ko xaama la commencé yasaluhu di ko questionné say nelaw na muy demee te kadaf ko na da aqlata xusa li tax bahir wax ko loolu te xamul xërëm yi dafa dégg xureesin di ko gini mu dafa ne nëb ñu koy gini cala mu ne ko man lay gineel ci àq yàlla ji ñuy wax laata xusa ndax nga tontu ci li ma lay laaj nabi ne ko ñooñu kenn du giñ jëme ci man ñoom mu ne ko fa fa billahi maa ngi tuuti màggu yàlla di sakku ci yow nga répondre ma li ma lay laaj mu ne ko laajal lu la neex tal naa si mu gënu dossier def li ma waxoon sànq xool ci dossier xool Moustapha xool ko xool ko wa xam ne mu commencé yalxaduhu di gestu na bi laxsan gestu sa diidam gu toftale wa nazara mu ngay xoolit ilal amam yi jëm ca mandarga ya ca dossier ba nopp yi di ñibbi yéen yi di moom jëbi di moom sakkal yàlla bi di moom katub gémmiñ gi di moom doxe mi di moom lekk mi di moom kon saahir bi moom la mu tëj dossier bi roof ko commencé di laaj baatin bi ba xam yasaluhu waaw fekk sama ñaata ñaata ñaata kilomètre la temps tant de mètre tant de centimètre géej yi yërmande yi ñaata la temps ci kaw temps ci suuf talaay suuf ñaata la temps nooy nelaw nangam nooy lekk nangam xaaji malik ne dañu laajee tontale dëppoog la ñu bind mu xool melo wi dëppoog li ñu bind am na lu mu def waaw dafa génn ne man ba salaam aleykum kan ci yéen da xale bi topp bu ndaw bi di Abdou Menaat ne ko man ma gis la lu ma doon coow maa ko jur ah ah wax ma dëgg bàyyi dundatul dina ko sama rak ko jur dafa faatu mu ne loolu am te su yàllaa yëgal bu ngeen passé fii un kilomètre dañ ko rey parce que bouquin yëpp signalé nañu juddoon signalé nañu premier voyage am de sept cent la dee ngi tas ci réew mi di ko seet nan la ci yàlla yemale man nag dugg naa ci biiram di la laa biire pour nga delloo ak moom day alaaji Malik ne waxaama yasaluhu mu commencé di ko laaj wal badiru musadala ñu ne waaw mu ne zayiduna naat la fi ñu ne waaw mu ne yurisilka daya ji xayra muxtasali allahu akbar koo xam dañ ko la yasaluna ko yasaluna ko yasaluna ko yasaluna ko du nakkante ñu ne waxaama mu commencé yelhelu di questionné u Moustapha nangam loo ci xam nangam loo ci xam moo nga ne wal badiru Moustapha mii laal zayiduna kay suñu sang yuniiru mu ngay répondre quelque dayaa ji yooyu question xëy na mun sa timi dëkk yi naka nakal sax nangam nangam nangam nangam nangam nangam nangam nangam mu tëj dossier ba ak góor gi am lu mu ko déy maa gën a xam naa la mu ko déy lama taxaqaqa lama taxaqaqa taxaqaqa maa qad zanna xaala li am mir de dunhu وأعلى المكر في الإيمان أين سيسي لعله خرج نعم مع ما وصل فاخبرني في ارتقابه كنت لما تحقق تحقق ما غزلنا قال لعم يرددونه فأعل المكر في إمامي xaaj maa li ne na la maa taxaqaqa ba nga xamee ne dëggu na ca góor ga maa xat sànn la mu jortu woon dafa jortu woon ne niir bii ku mu topp yónnante nga garab gii ñu tekki waxoon nañ ne ku ci tekki yónnante nga waxoon nañ ne it atam dina tolloo fukki weer ak fukki at ak ñaar noonu la ñu bàyyim du dundit Muhammad say tudd rasulullah yi jëkk mu juddu Qurayshin tout ñett ñi ci tuddoon Muhammad ñett Ahmad nag amu ca woon Ahmad moom moo ko jëkk tudd waaye ñett tudde woon nañu seen doom Muhammadu te ñu ngi ko jële woon ci ko demee ne ladd bi yëg ne dina judd te Muhammadu lay tudd kenn ku ne jëkkante tudd sa Muhammad di préparé pour mu doon mii waa waaye maa summiya ahadun ibnahu qablihi sal allahu alayhi wa sallam bi ahmada ama muhammadu fa salaasatu faqat xam nga كان أحمد قبل أن يكون محمد وقبيل أن يكون محمود xaaj Malik nee na bi mu wóoree góor gi ne li mu njortu woon a am xaala la waxe ca sase li am mi ñu bàyyam bu ndaw bi retour leen boo ci gisee koo doy lu dénk ko sa capital mu jàllaan waññu ko la gos bi am na ñu ne góor ga dafa continuer marchandise mu confié nabi bahira labbe bu mu delloog moom ne ko ko daif la am na ñu ne dafa continuer waaye mu gaaw a jaay wàññeeku am na ñu ne dafa battale marchandise am wàññeeku waaye daal labbe boobu ak lu ma am ci douzième ci fukki at ak ñaar yu Mohammed ànd naag papaam bu ndaw tukki xew-xew yooyu xew ci يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ñii ñëpp ci la ñu bokk. ci la wér wér. waaw lu tax.
ci maamu dëgg la يقول من يتسحر ah أنا أنا أضعاف waaw يقول الله لهم في سبيل الشر أمامه
sama amee naaw وضعاف
ah بين قوس وسلسل
moo jara woy
yaay dafa way ne laqad faata laam gi xasmu la xat gi tanqiix la billaahi tege na fawsu lu foor la bokkul ak na jaatu xam nga seen séparation mu ngi mel ni farxu ak suluur mucc ndi ci loo ragaloon donte dina la dabaat waaye heure yi mucc mi ngi ci dabandi loo doon sonne donte dina la riccat waaye heure yi mu ngi ci sa loxo dafa wute nag ak mucc koo xam ne musiba dafa la dab mukk ak texe koo xam ne ñàkk ko dootul am mukk lange laa mu xas mu la xat gi tànqiix la billaahi maa ngi ginne am na texe kan man kaana képp koo xam ne nekk na rasul Moustapha amaamahu di njiitam. boo ko nee yalang ak tëbbi dam mu ne ko muus di dem ak moom mu ne wóor ne parti bu nit ci nekk fala la wat a jëme koo xam ne nag parti bu nit ci nekk ki nga jox sa nos fala la om a jëme kon da ngay jëmel borom ne laxat faat te dara rawul tegtal gaa yi wax naan bon alxuraan a wax ne na ngay gën ci yonente yeeg yooyu ak di wax naan waxuma xadis waxuma dara alquran yax bi fu mu ne fang ne Muhammadu ibnu Abdullahi xayrul aalamiina ñu fi ko alquran waxe ñoom am na laajkat yu ñu dégg ne noonu la ñuy laaje waaye yàlla kañ fi mu waxee ne ne dee gën ñëpp du jeex mukk mukk mukk mukk baqara ba naasi baat boo romb aaya joo romb saar woo romb saar woo romb baqa isib boo romb signalé nañ fa ngënug nabi sallallahu alayhi wa sallam ana ban ñinintaa moom inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ban nabi la Muusa Ibrahima la Adama la ki yàlla fonk ba ne yéen de bu ngeen di nelaw man man yàlla man ak malaaka yi ma déggal day mun na ngay julli ci kooku kon bu ngeen bëggee mucc sallu alayhi julli leen ci moom bu ngeen bëggee mucc tey ak ëllëg man day maa ngi ci subaak ngoon loolu doyul pour ana kan la yàlla wax ne maa ngi ci service am kan la kenn julli li muy foofu daf ne julli leen boolewul ci boppam or daf ne or leen boolewul ci boppam jiyaar daf ne jiyaari leen boolewul ci boppam saraxe daf ne saraxe leen boolewul ci boppam aji màkk daf ne dem leen aji màkk boolewul ci boppam waaye julli tamit bi dafa jëkk ci boppam ne man ngay xaw ma kan waaye inna laha yàlla moo ni moom yëf yi di ko dogal wa malaikatahu ak kàngamam yi ko déggal te ñoom xaw ma yéen ñu ngi solo na léeg-la naaran ala nabi waaw وخير من التبحى عليه أنا بها ndax riyaa muslee tax waaw تقدر الله لكم كان أمامه
allahu akbar attaque ma bu mu sa def day jekkali ودوامه بين خوف وسلة day fekk rim sada jiitu ko fa ودوامه بين خوف وسلة semaine bii ñëw laay attaqué ji ba ba ma koog yéefar yëfa ne ودوامه بين خوف وسلة suñ borom day daal di yebal ngelaw mu tudd ngelawal ndimbal ودوامه بين خوف وسلة ngelaw li ñuy wax ngelawu renfort ودوامه بين خوف وسلة bii pitilige ودوام بين خوف وسلة ngelaw loolu bu àggee du upp ca tool ya ودوام بين خوف وسلة du upp ca liit ya jàmbaar yi ko gën a mën la ñuy toj seen dënn upp ci seen xol yi ak ragal وتوافى بين
يسننا أن الله تبارك وتعالى لا يقدرون على البعثة من إيش لا يكتسبون وقذف في قلوبهم الرعب يضربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إلا أن كتب الله عليهم جلال لا تبص بها ولا قيتم آه. amul kenn koo xam ne kii yonent la ni ma leen ko daan wax lu dul sàkk nga ci leeru ni bi ak tëbb ata jibril nee na ñaari bés bu dul woon barke leeru rasulillahi ya dee dina ma dal keroog bañ jàppee naan Ibrahima sànni ko ci sabara wa te lu taxoon ñu sànni ko ci sabara wa dañ ko mere woon mere wuñ ko woon ngir boppam dañ ko mere woon ngir yàlla te tal yàlla rek ni muy defal ku ñu mere ngir moom yàlla jara farlul ba ñu mere la ngir moom iblis la woon bu daan liggéey ay statue yu ñuy def yàlla alors ndax ni muy kiirle njaaye may tax muy lëmb da daan wax ne kuy jëndalu lay lor te di la jariñ kuy jënd lu lay lor te du la jariñ léeg-léeg ñu ñëw ci mbalka teg teg stati yi ne leen du ngeen naan booba gos na de jamono bi muy juddu booba namru saay saay bi moo ëppoon doole sax jamono yi pe xaw na booba xel na tamit moo nit ki ko war a wàcc lii mu juddu tax muy rey nit ñi vitrine yii ñuy def xale yu matul yi ci la ñu ne bon Ibrahima am na fukki at ak ñett si gisul biti fere ba mu njëkkee jéem nag seen nii timis la seen biddéew yi dal benn benn daf ne man day xëram du sama yàlla biddéew yooyu sama yàlla guddi gi dox tuuti guddi yu suux weer yu fekk mu ne weer wey sama yàlla nag fajar xar weer wi réer jant du fenk mu ne sustuma sama yàlla ngi nag asa akbar فلما أفلت قال ربي إن لم يعدني ربي لأكونن قوم الضالين di siiwar jant bi ba takkusaan mu di ko siiwar ba mu sox mu ne bu ma yàlla wallu wulee teg ma ci yoonu njub dinaa réer ni réew mi réer alquran ne la walaqad aatayna ibrahima rusduhu min qablu wa kunna bi aalimin seen waa dëkk dañu defoon benn place boo xam ne sardi sardin ba nag dëkk ba yëpp gañe gu ne am nga fa istat istat yi yooyu boo amee tiit mbaa njàqare yàq pénc si ngay ñëw waaf ci suufam di sàkku xiiwal wala ngay sàkku mucc amoon nañu bési feet bu bési feet bi jotee ku ne da ngay toggal sa xërim boo ñëwee teg ko ci suufam jàll na fa ñuy màggale sore naa fii nga xam ne mooy njiit bi këram yi ne ndeysaan ak li Ibrahima jëkkee génn ak moom ba ñuy seeti dañ ko fa forcé mu ne leen man daal sawaruma ci dem ñu ne ko bëgg a dem bañ dem yee yor réew mi dañ ko jiit baal leen ma sama biiray metti baal leen ma sama biiray metti
muy kii ku ko topp toog dañuy bàyyi ko fa dem mu ne waxoo ca njëgg la ñuy def istatiya istati bu nekk ndi tuum si buuli teraanga di la saw nit indil Ibrahima bu gën a maa la maa baalakum la taakuluun waaw bu ngeen lekk ñu ngeen jox maa laakum ala taakuluun ñu ne pat mu ne leen teraanga ji yéen lañ ko jox du ngeen lekk mu ne pat mu ne maa laakum la tantiqoona pourquoi tontu wu leen ma lekku leen sëriñ ne yàcc yàccaaro rek tiim li ñu tiim talaaxa darban bil yamini talaaxa mooy jaayu nii tëdd si li li mu yoroon ci première statut bi mu toj dal ca ba ca suuf mu toj mu dal ca ba ca suuf mu toj ñu dégg lii ci des ba xërëm ba ca gën a ngam kilifa gi gën a rëy ci dëkk bi moom ko mu dégg sa ñu nga wékk ko ca ودواء ما بين الخوف والقلة teg nag lii ودواء ما بين الخوف والقلة gaa yaa nga yàkkamti seet ji pas ba ñu jaay ci ndab yi barkeel ci ودواء ما بين الخوف والقلة ndab yooyu kat di ci def ci la ñuy dem ci la ñuy faj yi seen i saa jàngoro ci la ñuy ñaan yàlla ودواء ما بين الخوف والقلة moom ni roog li suñu mbokki la buy wax tuur ودواء ما بين الخوف والقلة ñu naa tuur bi yaa ko fi tuur ودواء ما بين الخوف والقلة
soo moom nga fi tuur ni tuur ni nga koy tuural ودواء ما بين الخوف والقلة moom la sànqale ngi ñëw di faraatu si ودواء ما بين الخوف والقلة moo gi seen sànqale ngi ñëw di ci for si si ndax yi nag seen mbóot ñu ñëw di ci for si jàng ni ñu xeet nag pour jéem a profité ci sa ndax yi ñëw tuur maa ngoog tuur maa ngoog fekk tur mi yaa ko fi tur xale ya walbatiku nag waa dëkk bépp wàññe wàññeeku fekk xirim nit mën na reet ci ko xaalu man faala hada bi aalatina benn waay bu kàccoor ne ne sëriñ ñetti baat la am xaalu ak jasakallahu xayra ak inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne boo déggee sëriñ ne xaalu ca kaw wala jul téere yaa ngay daanu ci kaw nee na waaye bu ba fëgg tànk yi ne inna lillahi ne ñetti nañ ko lu ko neex ci noonu ne is jasakallahu xayra nag moom boo ko déggee rek la fa génn waay ku def nii sunu xiram yi benn sunu ngi leen sami naa fattaan yudkuruhum déggoon nañu sànq benn wëlam bu leen di faaga ñu ne ko xam nga turam mu ne yaqul wa Ibrahim chef d'état bi daal di installé ñu daal di ne faatu bihi ala ayuni naasi laallahum yasadun indi leen ko ñu tante tante Ibrahima jiital indi ñu ne ko anta faalta haada bi aalihatina ya Ibrahima yow yaa def sunu yàlla yi nii xëram bu mag bi kat nga ne yang ni yangaaroo gàddu seen i ñoom rek Ibrahima ne manum jàmm fasaloo kabiruhum haala ci ni fa gii gën cee rëy te gàddu seen ñu ngeen laaj ko ko teg yu ndaw yi ñu ne ko laqad alimta ma aulaay yattaquun إنما بل لعبة لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا